di wax asalaamaaleykum mbokk aduna bi yépp rawatina waa Sénégal di ñaan suñu nuyoo bi yàlla na fekk yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm ñëw nañ nag seen émission bu mag bi bi ni wax conseil président <laughs> conseil président dama génn barki démb ma nuyu président Macky Sall ñaanal ko jàmm ndax bu amee jàmm ñëpp am jàmm ak bépp njabootam ak bépp jullit bu nekk Séné nit bu nekk Sénégal ma ne ko monsieur le président yaa ñu yilif waaye moomoonu yaa ñu yilif waaye moomoonu am ñu ma woo ñu bëri maanaam tiit ma ne leen loolu lu ngeen ciy tiit président Macky Sall mooy président Sénégal mooy président maanaam képp ku nekk Sénégal moom mooy sa njiit waaye nag moomunu moomunu nag wax dëgg yàlla moomunu mooy suñu président waaye président Macky Sall moom moo ñu loolu laa waxoon ak yar teggin moom sax xam na ne moom président Macky Sall moom xam na ne moom moomuñu ma wax ne ko Youssou Ndour mu ñàkk fayda mi maanaam dafa am feebar bu nekk ci dëkk bi nit ñi jaaxle nit ñi jàq taluñu fox taluñu ree maanaam nii feebar bi mel Europe maanaam di lore di reye ñun nag yàlla dimbalanu jox ñu ay docteurs yu xarañ am jox ñu ay docteurs yu am Pastef jox ñu ay docteurs yu bëgg liggéey li liggéey suba ak ngoon yàlla nag dimbalanu ba ñuy def ay résultats daanaka feebar bi ñi mu dal ñëpp dëkk yi mu dal ñëpp Sénégal ni ni ñuy faje nit ñi ñuy wër xaw ma lu leen di jox nag waaye li ñuy jox nit ñi ñuy wër amee lañ njukkal suñu médecin yi ak ministre bi nga xam ne moo jiite euh, euh, santé léegi Youssou Ndour mënul toog ndax lamagnam xessal na gemagnam mi ngi xessal ndax dafa tamu way légui ñu teunk ñepp ci biir légui nak mu ne il faut mo mo torox porox ndollo mo wut porox ndollo ci coronavirus bi porox ndollo bi moy lan moy dajala ay nit kërëm yeen docteur yeen wax ne dajalo baxul yusnur nak dajala na ay nit kërëm di def soirée soirée manam xoma live lañ koy wax xoma di ko def maanaam pour nee na pour wéttali nit ñi ànd ak ñoom wéttali leen ci guddi gi Youssou Ndour dama lay xamal ne la jamono yi jamono yu wéet la ndax kii ñuy wax sëriñ Touba ba mu bëggee liggéey liggéey bu rëy bi dafa dem Touba mu nekk àll boo xam ne kenn newu fa mu toog fa di wéetal boromam lu jiitu Serigne Touba sax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daawul toog ci biir nit ñi da daan wéetal boromam maanaam ba fa la ko jibril fekk fa la gisee jibril ci wéetaayam maam alaaji Malick noonu bàyyi laay bi ko nit ñi sonalee dafa dem dóor ci géej gi géej ga dandu mu dëkk muy jàmmalaay mu toog foofu di wéetal boppam bàyyi ñes noonu ndax wéetaay bi ñu wéet nii suñ ci génnee dana war a avancé benn lambar lambar di ci mbedd mi taxawalu gu ci mbedd mi ñu tek ko ci suuf ñaar samedi dimanche ajjuma alxames alarba altine bis yooyu yëpp boîte di ñi ngi tëgg maanaam boîte de nuit yi maanaam bërëbu baalukaay yi day ubbi ñu ñu ñàkk fay di ñi nag dem toog foofu dajala fa góor ñi ak jigéen ñi di way léegi mënatuñ ko loolu feebar bi war naa tax ngeen am ci njàngat ngeen bàyyi ko ndax baaxul làmb ji gis nga tëj na léegi nag ñoom fi mu nii dañuy ñammi ñammi dañoo mel ni ku toog ci xal mooy waykat yi li ma doon wax gis nga démb nee na leen bu gis nu defee nii Pape Diouf da koy def Waly da koy def Pape Diouf mi ngi koy def Pape Diouf moom da cee dool di fayee ko 400 francs lay lay fayee ko pour nga seetaan Pape Diouf da ngay fay 400 pour seetaan bàkkaar yooyu. moom it ma ngay def léegi nga gis nag Ouzin Keita xaw ma Ouzin Keita lañ koy wax kooku naan bërëng bërigo léegi mu commencé def nee naa la dañoo ñàkk fayda ñàkk fayda koo xam ne maanaam lii da leen a tënk ma ci waxtaan bi dama ci bëgg a jaaral rek wax leen li ma wax nii amul ci amul ci lu ci garaaw ba tax na ñi ñu bari di tiit ma ne leen ñoom dañ cee bëgg a profitoo ma ne leen Xaadim Gueye borom baat bu neex bi bu la tii boo toogee moom ci tànt doo bëgg a ñibbi doo bëgg mu tas Moustapha Seck Cheikh Diop Mbaye Cheikh Diop Mbaye ak jànkat ak dur kenn mbay jànkat yi nekk fii maanaam jànkat yi nga xam ne xasaayit yi nga xam ne mag ñu baax ñi ñoo ko wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko yàlla ñoom ñëpp kenn woyatu ci te ku ne xam ne ni ci jàng yooyu lan daan jële ay lan daan jële xaalis bu ñuy dundale seen njaboot ñooñu ñoo waroon a placé wu maanaam di def ay soirée man def ay jàng mais tere na leen ko bàyyi nañu déggoo benn jàngkat mu ci caw lii donte am na lu leen metti déggoo benn jàngkat boo xam ne wax na ci wax na ci mbas mi manam def ci lo xamé nak sudu non la ñi ngi tok di jang sen xassat sen bir kër di ñaan wa dama ne ma ne leen Youssou Ndour mooy kan Youssou ndur mom moy kan nit la ay at yu bare bare bare bare bare bare manam mu ne fi di way taxna xalé yépp bëgg nanu bëgg nañu bëgg te ci gattal dama leen di wax yéen waa Sénégal bu fekkee nag ay jullit ngeen maanaam koo xam ne jullit la waxuma ak naa naafeq yeeg fi mu say seytaan yi waxuma ñooñu man ñooñu dama leen a classé fële man nitu dëgg yi lay waxal wax leen yéen jullit yi est-ce que dajale ay góor ak ay jigéen ak yàlla ni mu fiiree ñu tëju ci benn bërëb kenn ki nekk di war ci kaw seen bi. morso bu jeex mu teg beneen morso bu jeex mu teg beneen bërëb yooyu ñu fay jaay sàngara wax leen ndax loolu dagan na damay lañ ñaan rek ngeen wax loolu ndax dagan na xam nga Youssou Ndour li ngeen ko may dafa ëpp li ngeen ko may dafa ëpp ndax ëpp gi mooy gis nga sag tabaski dama ko seetlu wala korité masaalikul jinaan Youssou Ndour ca sàpp ba ci kanam lay toog waxuma sàpp ba ci kanam sax buntu jàkka ji sax amu fa place buntu jakké ji sax amu fa place sak len lolu sax tabaski wala toplen len jël len euh, tabaski bi passé ci masalikul jinan ngeen xol Youssou nur fan la tok ak doomam ca sàppa ba ci karam koku war naa toog foofu jumaa ji sax waru fa dugg ndax xalé yi woy yépp ko wax mu ci nur lay roy roy da ngay roy lu bax dama lay ñaan dama lay yegg man sa mbokk la sa mbokk la li ma lay wax mooy damal sa micro bi dem jaamu ji yàlla am nga loo demee màkk kenn musta dégg yu Ndour dem na màkk te sa télé bi chaque année nga yóbbu nit màkk wala ñaari nit chaque année nga yóbbu nit màkk wala wala wala nga yóbbu ñaari nit te yàlla nee na soo amee lu la yóbbu màkk maanaam demal aj war la soo amul nag wàcc na la doo gis da ngay dégg sax seytaane yi maanaam seytaane yi nga xam ne ji yi naan alaaji Yuusu Nduur alaaji Yuusu desa xam nga maanaam jidde sax demul fa li ma lay ñaan mooy damal sa micro bii nga tuub wul nga delluwaat si yàlla sa mbokk laa de man maa lay wax dëgg damal sa micro bii nga tuub dem jaamu ji yàlla dara weesul waaye dem bay am ay bijaaw bis bu nek rek nga bëgg gëna doon xalé yor sa micro dajalé goor ñi jigéen ñi même concert yi ñi def même stade yi ñi def xool leen vidéo yi mbokk yi bala nga na contre wala ngeen ni ngeen ngeen a ki manam dafa single Youssou Ndour single mo Youssou Ndour dama ko bëgg ndax man suma sañon ben sénégalais du dem safara ndax loolu mën naa am ben sénégalais du dem safara loolu mën naa am ndax am na ñu ko fi liggéey Serigne Bamba liggéey na fi loo xam buñ ko toppee kenn du dem kenn du dem safara maam El Hadj liggéey na fi loo xam ne buñ ko toppee kenn du dem safara Cheikh Saad bu noonu bàyyi Laay noonu Baye Ndiassane borom Ndiassane borom ba ñoom ñëpp liggéey nañu lu tax kenn bañ dem safara won tuub leen damm seen micro yii dem jaamu ji yàlla ndax mbokk yi. amul benn benn sëriñ wala benn borom xam-xam bu mën a weddi lii ma lay wax nii yàlla dafa fiir gi nga sa doom bu jigéen su demee ba am juróom-ñaari at amatoo droit uuf ko sa doom bu jigéen yàlla ne la bu leen bu bu leen jege njaalo waxul bu leen njaalo de bu leen jege njaalo teg ay sartam ne soo mësee am jëkkër wala nga am jabar soo njaaloo dan laa war a rey <laughs> ndaw néew yu bari buñ ko <laughs> illaay bu ne ñi njaaloo ñëpp nañ génn ñu rey leen kon da day mel ni tubaab yi duñu am fuñ leen suul ndax daf dañ koy fawee mu ne boo amee jë boo fekkee mosoo am jëkkër mosoo am jabar nga njaaloo dan lay dóor juróom-ñetti fukki yar illaahi buñ doo dóor ay yar fii gars dañuy dóor ba ba toqi maanaam dañuy dóor ba toqi tey yow nga taxaw maanaam di yombal njaalo nan nga yombale njaalo xam nga yàlla ne na jigéen na sol lu jot na muuru sol lu jot waaye est-ce que mbokk yi yow mi may déglu tey dem ci soirée yi est-ce que yére bi ngay sol dem ca soirée ba ci guddi gi est-ce que ñeme nga ko demee marché suba est-ce que ñeme nga koo jullee est-ce que ñeme nga sol ko taxaw sa kanamu papa wala taxaw sa kanamu yaay bu nekkul nag yaay yu ñàkk fayda yi ma gis fii wala bàyyi yu ñàkk fayda yi ma gis fii te baay bu ñàkk fayda mënut a weesu sa doom jënd la ceeb ak diwlin fayal la ndox fayal la courant te liggéeyul fu mu ko jële gaa yi dofatu de bu la joxee la joxe ay junni den la rey maanaam lii tax ñuy joxe ay junni junni junni nii maanaam dina dina la wol ba nga mokk. wax leen est-ce que yére bi nga sol dem ca baalukaay ba ñeme nga ko sol seeti sa sëriñ kon nag yére boobu baaxul yére boo xam ne xaaju guddi rek min wi jëm kaw lañ koy sol balaa bëtt seet ñu summi ko seetaan leen leen lii di daw photo yi nga gis nii Sénégal la xew seetaan voilà gis nga ñii est-ce que ay jullit lañu xool li sol est-ce que ay jullit seede leen ma bul jëlal mbañal gi ma bañ jëlal ñàkk sopp gi ma sopp nga teg ko fële ñu wax sunu aqulaay taala suñu digganteeg yàlla suñu borom lii ay nit dinañ ko def waa ñii fa ñu jëm est am na jàmm ki tax ñii di dem fii kan la Youssou Ndour Wally Seck Pape Diouf ak ñeneen yi puisque ñii lii ñu sol nii mën naa dem si ziyaare ji si sëriñ te ñii ñëpp ay jullit lu ñëpp ay jullit lañu ma ne la président Macky Sall arrêté lu Youssou Ndour mii ndax nit ñi mënu leen a toogloo seen kër président Macky Sall da ne nit ñëpp nan toog seen kër Youssou Ndour am na dépense am na lu mu fay courant am na lu mu fay ndox mais sama classe gi amuñu dépense amuñu lu ñu faye courant amuñu lu ñu faye ndox. te dañ daan jóg ci guddi gi dem li lijjanti ji ko léegi nag huit heures tëj na huit tëj na ñi daan jaay marché quatre heures deux heures ñu tëj boole leen neex ak leen naqar yëpp dem toog seen kër nga bàyyi Youssou Ndour mu dem ci këram gële dajale fa ay nit di way di tëb di fecc monsieur le président loolu du dëgg du yoon du dëgg du yoon c'est pas normal du yoon kon nag. waxoon naa la ko keroog dama la koy waxaat tey arrêtel Youssou Ndour mii yàlla dafa dagg ci nguuram jox la yàlla dafa dagg ci nguuram jox la maanaam tey dangay nelaw ñu lay garde da ngay tëdd di nelaw yàgg sa njaboot ñu lay garde ki lay garde bàyyi jabaram bàyyi ay doomam taxaw ci sedd bi taxaw ci tàngoor bi maanaam bés ba ba nga yeewu loolu yàlla la ko defal dan la ciy dan la ciy dan maanaam dan lay dan la ciy ñaanal jàmm gën a yokku yàlla bu xat damm ci lii ngay def nii tey soo jógoon léegi di romb jóge Dakar di jëm Thiès dañuy bare mbedd mi am na koo xam ne dafa feebar ñu baaree tali bi am na koo xam ne dana wuti dépense ñu baaree tali bi am na koo xam ne maanaam dafa yàkk dañ ko dafa am dëj ñu baaree tali bi baale tali bi mu ne yàmbalang nga taal sa oto ay motaar dar la nga dem ba fa ngay dem boo ñibbi siwaat ñu defaat noonu tey ku nekk Sénégal yaa ko yilif yow la yàlla teg Sénégal sa loxo loolu yàlla la ko defal yàlla yow yaa gën a tey bu la neexoon benn butéelu sàngara dootul jaay Sénégal bu la neexoon benn carte dootu fi am bu la neexoon njaala yi nga xam ne dangay ngay fay sa xaalis dem tëdd ak jigéen dootu fi am ndax bu doon ku ñu jàpp ramas la tëj la juróomi at benn caga dootul génn waaye yére ko déggandoo bi coronavirus bi ñëwee nga dégg cagga ju bon ji naan Macky Sall dañu fàttali ko Sall dañu fàttaliku taxaw di jaay sa bopp ci mbedd mi façon góor bu nekk jël xaalisam jox la xamoo dëmm la xamoo diine la xamoo nooxoor la xamoo lu mu doon ngeen baal ma sax dëmm amul ci àdduna xamoo lu mu doon ngeen taxaw fii saawaay ah di ko jox carte mu dem di jaay boppam loolu tegu leen ko fenn ku ko defit boo faatoo di nga dajeeg yàlla sunu borom koo ko ci def boo faatoo di nga dajeeg yàlla sunu borom da am na yu bëri day favoriser njaaloo ak sàngara wax naa la ko léegi maanaam station yi bitig yu mag yëpp dañuy jaay sàngara sàngara yu ñaaw tey fi la. ma ne la waxal ci Youssou Ndour mii mu mu dem xaar ba affaire yi ubbi ñu dem ñu dem euh, ñu dem defaat li doon def ndax lii xam naa moom duñ ko bàyyi dañ ciy dee lii nii duñ ko bàyyi ndax Iblis dafa bari doole ñii ay membre ay membre Iblis lañu bu nu génnee nit ñi xëm xam nga xam nga kan moo jaroon génn xëm xaarim ngay génn rek nga xëm. Moustapha Seck jànkat yi jànkat yi ñoo waroon génn ay Cheikh Diop Mbaye dut kenn mbay ñoo waroon génn nga xam ndax li ñuy tagg yàlla li ñuy tagg Seydina Mohamed ak li manam xasaay yi nga xam ne ñoo koy nettali waaye benn waykat day génn nga gis nit ñi xam di daanu xam nga tey waxoon naa ko daaw benn waxtaan koor gi ma dégg benn xale bu jigéen ma dañuy dañuy tëj saison bi maanaam saison bi dañ koy tëj ndax koor gi ñëw na xam ne kooku moo bon kooku ne ko yow yaa bon saison ban ngay tëj saison saison bu bon bi kon yow koor weeru koor su ñëwee ba dem bu raxasul say bàkkaar maanaam bu bu bu la yet yeewul bu la jubalul ci diine yow nitu safara nga nit ku bon nga nga dégg ñu naan dañuy tëj saison bi waaye yàlla tëj na saison bi yàlla ci boppam mi moom saison bi tëj na ko. nanu dellu ginnaaw tey wax dëgg nag loolu laa wax président Macky Sall ne ko nag yaa ñu yilif waaye moomooñu moomooñu ndax ku ñu yilifoon Senghor yilif nañu fi Abdou Diouf yilif nañu fi Abdoulaye Wade yilif nañu fi yow yilif nga nu fi di nga dem di nga dem dootoo ñu yilif keneen ñëw yilif nu képp ku nu mën a yilif nag doon président fii maanaam moomoo nit ñi nit ñi daanaka sax nit ñi ci seeni soxla ngay dox daanaka sax bu doon moom nit ñi ñoo la moom ndax saa boo xëyee suba ci soxla nit ñi ngay dox loolu laa waxoon président Macky Sall bi ci des mooy ceeb bi Sénégal ñu bëri dañ ñu bëri dañu gàtt xel dama xam ne feebar bi yàlla wàcce ko muy rey tey tey France dañoo am 410 personnes yu dee maanaam juróom ñett fukki juróom ñett fukki nit ak fuk yu dee France kontaan ne kontaan nañu ndax lii ba mu amee ba léegi ba virus bi amee ba léegi mi ngi fi doon am aduna bi ñëpp boo demee booy seetaan dëkk Europe Europe yi ak Amérique nga gis ni mu daan xumbe ñu tëj ñu tëj ñëpp ci biir kër yi ndax feebar bi feebar bi ñëw Sénégal daanaka léegi ñu dugg ñeenti téeméeri nit ñu ne fi di xëccoo ceeb naan ceeb bi nii laag ceeb bi naa la maanaam ceeb bi kii am naag dinaa am ceeb du mu am ceeb fàtte nañu feebar bi dugg ci ceeb ak transport bi di xuloo ci loolu fàtte feebar bi fi mu feebar bi jël nañu ko teg ko fële may ñaan monsieur le président am na yenn yenn conférence de presse yi yu jëm ci mbirum ceeb ak diwlin noonu bu mu koy defati bu mu ko def nañ koy écarter ak ministère de la santé ndax ceeb bi muur na ministère de la santé werante ceeb beeg diwlin jéeg yooyu Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen la yéen la yàlla nattu amu leen yéen la yàlla nattu amu leen ànd leen ak ngor Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na dem ba du am mbubb mu sol te musul musul gore di musul saalit moom moom Muhammad daan na dem xiif bay jël xeer di takk seen biir yi sëñ Bàmba mii maanaam. bi mu demee ci tukkeem bi dem na ba nga xam ne jamono day jot euh, jamonoy koor bu dog jotee du am lu mu lekk day dagg benn xobu garab ñam ko wextaan boobu di nekk ci xobu garab bi moom lay doge moom lay xëdde moom Serigne Touba yow nga ne fi di xëccoo ceeb di kaas ci ceeb ku nekk di xuloo fàtte feebar bi ministère de la santé dimbali leen ñu ngir yàlla yéen bu 10 di jot ñëpp dañuy taxaw ñëpp yéen la ñuy déglu kon nag bàyyi leen bu leen jël. manam lu bokku ci ci santé bi ci faj bi ngeen duggal ko ci biir masor fay mi ngeen fi yobbu kérok masor fay mi ngeen yobbu fef kérok manam mu def mu nek ministère de la santé di lijjanti ciébek du diwlin njëg yoy gis nga polémique bi mu andi ñepp di ci wax masor fay gis ngeen ko kérok muy muy muy lemmi lemmi manam ñak toy xepp bay sit xawma liñ koy jiñ moko def xaw ma def ko waaye bu doon tribunal moom juge bi da koy doon mandat dëpp bu doon bu doon tribunal la nekk ak ñaqam gi ak tiitam gii ak ni mu ni muy waxee xam nga yow nit journaliste laaj la nga ne ko soo ma laajatee ma porté la plainte xanaa yow yaa moom tribunal bi xanaa yow Mansour Faye yaa moom tribunal bi Mansour fay dégg naa nangam dégg naa nangam nga ne ko boo boo ma ko boo ma ko boo ma ko waxatee ma porté la plainte mais Babacar Fall journaliste boobu. dama koy suivre journal si boobu dama koy suivre ndax ponk lañu ngi noonu moom Babacar Fall boo ma laajee ma porté la plainte xanaa yow yow yaa tabax tribunal bi jël awokaay yi juge yi di leen fay par weer wax naa yaa moom tribunal bi xam naa Abdoulaye Wade mi tabaxoon tribunal bi sax mënul loolu boo ma laajee tey ma porté la plainte yow ñu lay laaj laaj lu jar ñax tontu rek da daa jar ñax nga tontu bu dee li ngay wax nii maanaam mi ngi ci yow. wax bi bu ñu ko waxee tontu bi dafa yomb mais bu dee li ngay wax nii dafa am lu ci lëndëm maanaam tontu ba dafay jafe waa laaj ak tontu lu ci jar ñaq ñaq bay siit bay bay mer ba xamatoo lay wax xam nga di sëgg ak di reetaan nag teewul ceeb ak diwlin xam nga bu ñu laajoon waa Sonatel sax du ñu laaj ay fere da ngay toog sa message sonné nga dem jël sa jël bu boobaa vérifier bi dafa yomb ndax Sonatel day xam ñaata la ñu joxe waaye xamul fi mu nii ceeb bi ba fu muy mujj di nga ci dégg coow ndax Sénégal moom bàyyi na lu coronavirus bi dem ca ceeb ba te li ko andi mooy Mansour Faye fa mu defee conférence de presse bi dafa waroon a woote feneen conférence de presse te conférence de presse bi sax leerul ndax am na yu bëri nee na bu ñu paree mënoon naa xaar ba ñu pare ndax nga kilifa duñ la wax rek nga jóg tontu ndax ku yéeg ci garab ñu sànni la xeer nga a wàcc fayu doo àgg mukk kon wax naa leen samay wax jallu muus la booy wàq di gis lu mu leen wax rek ngeen gis ko nee na kii dafa mën a wax dafa nangam dafa nangam dafa nang bëgg na man ci jiyaat laa nekk ci lii may def nii bu ma ci deewoon alhamdulilah lay wax lu ma ci mën a dal nag alhamdulilah lay wax ndax man yàlla lay liggéeyal li ma leen di wax yépp xam ngeen ne dëgg la Sénégal moom fo moom fo moom dafa ñëw rek maanaam dëkk fi te ñun waruñoo fo ndax suñu koom-koom bariwul ndax ñun mënuñoo bàyyi lu ñu de tey xoolal bu ñu tëjal frontière yi ne dëkk bu nekk na dunde li muy li muy bay na ko dunde kon fu ñu jëm gis naa it benn waay yi wane ceeb bi ci whatsapp bi du lu may gëm nag mais dama ci dama ko dama ci waxtaan tuuti rek gis naa benn waay wane ceeb bi am saako yu xonq yi mu filmé ko am lu mel ni ay peru jama ay per yi melax ci biir ceeb bi mu naan xool leen ceeb bi gis naa ay gis mu ne gis na mu mu mu koy wane seetaan naa ko gis naa ko waaye nag bu dee per yooyu moom baaxul bu dee dëgg la képp ku ñuy jox ceeb bi bala nga lekk ceeb bi na nga ko tànn te waxoon naa leen ni leen ñi nga ñoom ñii kilifa yi nga gis nii du ñu lekk ceeb bi ceeb bi du dugg seen gémmiñ ceeb bi ñun baadoole yi rek ñoo koy lekk kon nag président xoolaatal loolu ñuy wax ci ceeb bi maanaam melax melax yooyu nekk ci ceeb bi mel ni ay peru jamaa ben way dal genné nako waye nak internet mom man lu bari moko gisé dama ci mandu dama ci mandu waye dal jappal né monsieur monsieur le président ci bi tax na nit ñi faté feebar bi te nit ñi ñi ngi genn ñi ngi dox seeni soxla ñi ngi genn ñi ngi gis dox seeni soxla ni lañu ñu ci commencement ba bu doon premier cas bi bi ñu ko jotté rek ñu tëj frontière yi maanaam kon du ag fi mu ag waye dañu nek fi di Sénégal dañu nek fi di wacc di wacc di wacc ba gis nga feebar ni mu mujj ay cas yoo xam ne xamoo foo ko jële maanaam xamoo foo ko jële xam nga ba pare nag ñëw toog bari na fii ci dëkk bi te lii su continuer day law te bu lawee dootuñu tal ceeb dootuñu tal diwlin bala ñu àgg foofu nag nañu jublu ci feebar bi ku ci nekk bañ a wóolu sa morom koo gis jàppal ne am na ko moo leen mu jàpp ne am nga ko kon lu ngeen fi nekk di bombante ka nuyoo ko songante ka akolaatante loolu daal laa doon waxtaane waaye daal la ma waxoon li ma leen wax yéen si yéen sama mbokk yi may topp di ma déglu président Macky Sall bi ma koy jox maanaam yàlla moo ko ko jox jox naa ko cër boo xam ne yàlla yàlla cër bi ko yàlla jox man mii jox naa ko ko mooy sama président moo ma yilif waaye nag li ma koy wax dëgg gi ma koy wax moom kenn mënut a tere ma wax ko tant maa ngi mën a wax li ma ko wax nag. nee naa ko yow yaa ñu yilif waaye moomoo ñu moomoo ñu ndax di nga fi jóge keneen ñëw yàlla na nga toog sa mandat bi ba mu jeex nga am jàmm sa njaboot am jàmm Sénégal gépp am jàmm allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman barke borom Touba jaaraama Serigne Saliou Mbacke jërë ngeen jëf